képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité bismillahi maa ngi way Cheikh Moustapha ngir yàlla may ma doom ju tudd way Cheikh Moustapha ngir yàlla may ma doom ju tudd la yàlla tànnoon ca bawoon def ko mu gën ñépp te jiitu ñëwe yoon Seex Bamba it dellu nu tànnal Mustapha mu jiite yoon wi yaatalaat ko xad faam Seex Bamba it dellu nu tànnal Mustapha mu jiite yoon wi yaatalaat ko xad faam Seex Bamba it dellu nu tànnal Mustapha mu jiite yoon wi yaatalaat ko xad faam ci tànn gi la sayxuna abdul asiis dellu si tànnaat mustapha def ko asiis ci tànn gi la sayxuna abdul asiis dellu si tànnaat mustapha def ko asiis ci biiri tànnee fi yàlla yi ci la gëne ku dim kemam te mas def yi fi gone di taabu taaru bismillaahi maa ngi way Cheikh Moustapha